sama moroom nun ñëpp sunu loxo ngi ci lii man miy wax ak sama morom a ci amul kenn koo xamee ne balaa yi wàcc ci kaw suuf tey surtout bii ñu toll nii muy mbas mu rëy mi nga xam ne wër na àddina ñëpp ku yabu ne sa bos mu ngi ci ku yabu tuumaal sa bopp te bañ a wiire mbir yi feneen àndaak nga xam ne nag lépp ci sunu borom la jóge wax naa ko léegi ma asaaba min musibatin illa bi iznillah men musiba manul taxaw wàcc ci kaw suuf lu dul ne ci ndigalal yàlla mbindeef manul am fexe yu mu ko ko fi jëlee kenn mënu ko fee jëlee yàlla ko fiy jëlee wax ji bari na jéem a feeñal ay martaba bari na ñooñu ñëpp ay mbindeef dong lañ ñoo ñëpp ay mbindeef lañ waaw ñooñu ñëpp ay mbindeef lañ kon wax ji bari na lay maxtaar loolu lépp la muy firndeel mooy nun du nu delloo mbiri sunu boroom subhaanahu wa taala war na noo di delloo mbir yi suñu boroom moo tax suñu boroom fàttalenu ne na ngeen xam ne musiba mi wàcc si yéen seen loxo yi moo ko sabab mu ne nag wa yaafu an kathir wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat ay aydikum mu ne wa yaafu an kathir xoolal suñu yërmande boroom nee ne musiba mu leen mën a dal mu ngi sababoo ci li nga xam ne seen loxo yi ñoo ko fàggu nee ne nag man day dinaa jéggale lu bari maanaam musiba mi fa mu waroon a àgg yàlla da si dindi lu baree baree bare xoolal fi fi mu li mu def ci àddina tey waaye sama borom nee ne naa ci lu bari moo tax mu wax si téeréem bu tedd ba ne walaw yu aaxizu llahu nnaasa bi ma kasabu maa taraka ala zahriha min dabba nee ne ah ay bu ma toppoon nit ñi ci yi ñuy def nee ne kon nëgër ni fekkul kenn dox ci kaw suuf nee ne amul kenn kuy dukkat ci kaw suuf si duma fi bàyyi kenn kon loolu nañu ko xam yàlla fu mbir mi àgga rek la mu ca bàyyi moo gën a bari sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci xadis abi musa al ashari donte xadis ba am na luñ cey wax waaye xadis la boo xam ne dëppoo na ak aaya bi laa yusiibu abdan nak حبة فما فوقها أو دونها لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وقرأ صلى الله عليه وسلم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ñëw na ci xadis abi Moussa al Ashari donte am na lu ñu cee wax mu ne sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam démb ak tey moo wax ci xadis ne nee ne amul dara loo xamee ne dana dal jaam bi muy ay malheur ak ay jafe-jafe ak ay stress ak ay problème yu dul jeex nee ne lu dul ne mu ngi tukkee ci si ay bàkkaar bàkkaar moo koy indi am na xeeti musiba yoo xam ne bàkkaar moo koy wàccee du ay liggéey ay làmmañ ay cat loola am na waaye lu gën a bari ci lu ñuy dal ñu di la gëm loo loolu ci ay bakkaar yu ànd ak yow la kon nag nee ne lu ci dal jaam rek bàkkaar moo këndi mu ne nag li ci yàlla di jéggale moo gën a bari li ci yàlla di jéggale moo gën a bari ci la jànge aaya boobu wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaafu an kasir la jàngaat mu ne ay gaañi lépp lu leen dal ci musiba mu ngi sababoo ci li nga xam ne seen loxo yi faggu nañ ko ci xeeti bàkkaar ak yàq suufa suñu borom la mu cay jéggale nag moo gën a bari wax nañ leen ko léegi kon na ku ne tuumaal sa bopp na ku ne bàyyi xel sa bopp tuub jëm ci sa boroom te xam ne lii am du kenn ku dul ñun bu dul woon sunuy bakkaar lii du am lay tegtale na nag sunuy bakkaar mooy indi mbas mi mooy waxam ju tedd ja sallallahu wa sallam si juróomi mbir yum doon arto saaba yi ak jullit ñi ne a ñaanuma yàlla day loolu ngeen e, ngeen fekk ko nee ne dinaa leen ci xamal juróomi mbir waaye benn balaay tudd ndax waxtu wee tax mu ne lam tazhari alfaxishatu fi qawmin xatta yuclinuu biha illa fasha fihim altaaun wal awjaaru allati lam takun madat fi aslaafihim alladina madaw pour ñu xam ne bàkkaar yi am nañu naan waaw bu leen ci tudd ay bàkkaar waaw bu leen ko yóbbu ci wàllu diine dégg loolu seytaane mooy def loolu parce que boo ci génnee yàlla égal ne yow musiba mi da ci perte ñaari yoon li lay dal na la ba noppi amoo ci yàlla wala sax bàkkaar moo la ci fekk nan la ñuy génne yàlla ci mbir yi naka yàlla mën naa téy àddina bi ak àllaaxira ak mbindeef yëpp di wëndeel guddi ak bëccëg ak la fay xew nga ne duñ ko ko delloo kan lañ koy delloo kan la koy delloo bari na tubaab yu ñuul yi ak ñi mel ni ñoom wax yu doye di yooyu ñoo koy wax waaye li war tey kuy xutbaaka wax na nga wax jullit ñi lii xew xew na ni mu dale weddikatab yàlla bi noonu la dale jullit bi léegi nag ki si mën a gañe mooy jullit bi buy sàgganee ba yam ak keneen ah moo xam nun dey ay jullit lanu incha allah ta du incha allah ku eh, maanaam nattable waaye barkeeloo ka ay jullit lan te dañuy ñaan yàlla mbir mu ñëw ñu delloo ko suñu borom subhaanahu wa taala yàlla amee mbir yi kenn mënu fee yëngal lu tolloog peppu atom te soobul suma borom buñ fi sagal ay sëriñ ak yu ma xamul mañuñu dara ab yonen manul malaaka manul keneen manul ku yabu bañ cee bàkkaar yàlla moo amee mbir yi li dal moo ko teg ta nun ñoo ko sabab lu nee ne soxna Aïcha dafa wax ne man de maa laaj yonent bi ku kay werante ci mbas lu mu doon ñi la naan du mbëggal nangam laaj naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma xabaare annahu mbas azabun mbugal la yoo xam ne yab asuhullahu ala man yasha yàllaa koy yobal ci ku ka soob kon loolu leer na ku la doon wax naan bu leen ci dugal waxi mbugal loolu leer na yàllaa koy yobal ci ku ka kon nañu fas loolu jullit day delloo mbir yi yàlla déglu bu yonentaam ginnaaw bi mu dégloo yàlla subhaanahu wa taala nee beneen riwaaya sax nee ne yàlla daf ko mbugale woon ab kuréel ci bani israil wala boog ñi leen jiitu woon waaye nee na daal mbugal la moo xamee ne ci riwaaya bi yàllaa koy yobal ci ku ka soob waaye xoolal li jullit bi mën a gañe yàlla ubbi buntam ndàmpaay ak yërmande pour fay ci jullit bi lay dal yéefar bi mooy dal jullit bi mitit yooya doon mbugal ci yéefar bi doon yërmande ci jullit bi mu ne wa anna allaha dégg nga jaalahu rahmatan lil muminin mu ne waaye yàlla daka def muy yërmande deel jullit bi xam nga liy dal ci réewi yéefar yi ak naafeq yi loolu mooy dal ci réewi jullit ñi li leen di gaañ moo ñu gaañ ba léeg-léeg ñu gën cee mittile seytaane da ciy profito di la gëmloo ne mbir yi bu fekkoon ne mbugal la mu jóge ci yàlla nangam ak nangam kon du dal ñu sellal ñi yoneen rectifier loolu ne mbugal la ci nii yërmande la ci ñii balaa bu wàcc musiba mu wàcc bu dee ñi gëm nattu lay doon ci ñoom bu dee ñi gëm nattu lay doon ci ñoom yàlla yokk ci seenu yiw sippil leen ci ay bàkkaar yéegi leen ci ay daraja bu dee ñi gëmul ak ñi yàq ci kaw suuf si mbugal lay doon ci ñoom ndaxte lee ñu dellu ginnaaw wala nuziqannahum min al azabil adna duunal al azabil akbari laallahum yarjun dinaa leen mosal ci mbugal mu oyof mi bàyyi mu diis mi mu mag mi waaw ndax ñu dellu ginnaaw kon nag mbokki jullit ñi lii la sanga bi sallallahu alayhi wa sallam atte foofu waaye ñun comme loolu la wax ñun dañu war a wax fi nekk jullit bi lan na nga fexe ba mbas mii li ci yàqule ci zaayir na nga fexe ba gañe ka ci geneen wàll gi mu yool bala ci yàlla di fay léegi nag nan ngay def ba gañe loolu moo waroon a doon waxtaanu ku ne te bàyyi détail yu bari kuy wax ci diine waxal lii nan la jullit ñi mën a def ba génn ci ak ngërëmal suñu boroom ak pay yu yi nga xamee ne suñu borom moom lañ ci denc moo tax sallallahu alayhi wa sallam da ca teg ne wa anna allaha jaalahu rahmatan lil muminin mu ne laysa min abdin yaqau taaun fa yamkusu fi baladi saabiran muhtasiban yaalamu annahu laa yusibuhu illa ma kataba allahu lah illa kutiba lahu mislu ajri shahid nee na amul benn jaam benn jaam yàlla boo xam ne mbas dina am cib dëkk ah mu fekk fa nga toog fa muñ di muñ ngir jëfe sa waxi yonent ngir ragal a génn dem fu mu amul wàlla leen ka fa nga toog di muñ xam nga mitti na mbas am foo xamee ne yaa ngi ci seen biir ñu ne toogal foofu muñ ngir nga bañ a lor keneen ndax diine ji kat laa darara wala diraar amul loru waaye amul lor keneen looloo tax diine ji am ci règle yi dafa wàccee juróomi mbir yoo xam ne dañ ko war a ottu muy diine bakken alal euh, xel ak askan am nañu si teg der kon yooyu ci diina yi yàlla ma sa wàcc yépp dafa digle nañ ko aar kon yonen nee ne sallallahu alayhi képp ku dégg samay wax mbir moomu nekk ci dëkk nga téye sa bopp muñ te yàlla tax saabiran muhtasiban nga xam ne yaakaaroo ci ku dul yàlla mu yool la ci loolu waaw ba noppi nag xam yaa am enlèvement annahu laa yusibuhu illa ma kataba allahu la mu xam ne amul dara dara dara lu ko mën a dal lu dul li yàlla dogal ci moom qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana wala déet huwa mawlana wala lay falatuka lmumin